bismillah ci sen chaîne HD 221 TV xibaar ci gatal ñu doore ko ak ki nga xamanteni moy euh, Sitor Ndour euh, nekkoon ancien directeur COUD mom nak nag daanaka rek euh, bayyi nañu ko mu daldi di ñibbi këram gannaaw nak bañu ko tëjee ay weeri weeri kaso niki tay ji nak lañu ko bayyi rek mu daldi di ñibbi këram ci fatali rek ne mom Sitor Ndour mom lañ ko doon topé du lenn rek lu dul nee nañu kat bu ko doon liggéeyal mom la sakku na ba daldi sax jotoon waroon a egg ci kawam ci noonu nag ñu nemmeeku ne ni ki tey jii rek lañu ko bàyyi li tax ñu bàyyi ko nag li ñu sukkandiku du lenn rek lu dul ci mbir mi daal ay laam-laame moo ca daldi am ba tax na rek ñu daal di koy bàyyi mu daal di ñibbi këram jànq boobu nag ci fàttali rek ay atam mi ngi tolloon ci fukki at ak juróom-ñett ba tax na daal ñu doon ko topp ba sax daal di ko ci tëj kaso ni ki tey jii nag ko bàyyi ñii di waa partie civile yëkkati seen kàddu. daan ni ñoom kat ñi justice su Sénégal da leen a bett bu baax a baax ndax daal lii njuumte boo xamante ni la njuumte bu diis a diis a diis la ci ñoom ci noonu nag ñu nemmeeku ne kii di maître Ndeye Fatou Touré yëkkati kàddoom rek ci RFM di wax ne nag daanaka rek ma nga mer ba futtu di wax ci mbir mi ndax daal nee na fii daal la victime boo xamante ni daanaka rek état daanaka rek nekk ci état de choc mu metti ci moom lool lool loolu ba ba tax na daal euh, nee na moom sax kenn dégluwu ko rawatina tribunal bu chambre criminelle dégluwuñu victim bi bu baax a baax kii nga xam te ni nag euh, daanaka rek mooy victime ba kii di euh, Ndeye Fatou Touré yëkkati na kàddoom daan ne moom kat daanaka ay kàddoom mujj ñu rek daal di koy considéré mbokk yi li moo nekkoon li gënoon a fees ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen jox dig daje ba beneen incha allah.